ñu dalal ko ni ñu koy defee àllarba bu àllarba bu jot avec euh, grand plaisir Aïssatou ñu ngi lay dérouler le tapis rouge malheureusement ma ngi koy wax sànq notre tapis il est noir mais <laughs> Marcel dina tapis tapis rek la ñu ngi lay nuyu di la dalal. <laughs> ñu ngi lay fay bu baax euh, maam Fati. Mm. di am mbégte euh, encore une fois jàkkaarloog yow sama rakk ju baax ji nga xam ne yaru lool. Mm. am orma ci ci mag di baalu àq ñëpp nag. ak di baal ak euh, ci weeru koor man wax naa ko war a baalo laa moo tax boobu ba léegi maa ngi wër di baalu <laughs> dama ñëpp baal ñëpp jéggal ma baal nañ la baal ñu yow tamit baal naa leen baal baaloon ñu baaloonte waaw waaw weeru baaloonte la du nuyu mm. ñëpp suñu mag ji Malick Gakou dégg nga ne Malick Gakou wax sama xel dafa nekk ci Malick Gakou sama mag la sama xarit léegi léegi ma romb nit ma Malick Gakou. waaw da ngaa gàkkuwee tuuti nag. Ah, waaw da xaw a gàkkuwee. <laughs> Malick Thiandoum sunu mag ji. bu baax tey nga dem génn def sa. njaxas ah, sa njaxas waaw. Ah. tey te dafoo n'importe quel njaxas. Mm. ay xeetu jas nga jël. Mm. pàcce ko. cëm xale nañu nañu wax si yow. xoole kay fu mu génn. marché sa def na effort sol euh, kii. tuutu bëla ci bëla bëla ci bëla bëla. yooyu gis naa ko umi tamit def na lii koor ko mën koor rek mën lii. sellal tey du àjjuma ñu ñu sellale ko nii. waaw te bien aywa ñu ñëw Chérif ci jàngat bi ak le sujet muy euh, li bees quand même ci mbiru Ousmane Sonko Adji Sarr bon est ce que sax mun nañu wax lu bees la mais euh, semaine bi passé audio yu bëri quand génn na. waaw euh, <laughs> loolu moom Fatick. Mm-hmm. Euh, lu lu <coughs> lu yéeme la te euh, effectivement ci loolu laa bëgg wax xam nga léegi su may ñëw. Mm-hmm. xam nga rek màggatum ko foog nga am sa ay tuuti galga sama samay brève waaw dama naa sama conducteur bopp. Mm-hmm. nga xam ne moom laa yore waale avant mooy ñëw ci Ali Kalaj donc bi ma njëkk ubbee nag boobu moom léegi laa ko léegi la ma dab en cours de route mooy. <coughs> Walfadjri. Walf Quotidien. le quotidien l' observateur in the house ñoom ñëpp ñu bokk benn titre. suukar si suukar Jean Claude Mimran xam nga li ma wax tout le temps man sax il faut ma nañu utal benn rubrique critique média parce que nañu euh, il faut que ñu respecter nawlawoo ñiy liir ak ñiy jënd. Mm-hmm. xam nga jël euh, benn benn bu doon def dafa def actualité bu ñu a wax. fi réew mu toll nii euh, léegi gis nga ko ndawal yaa ngi nii bëri cher. Euh, euh, benn pooju ginaar sax daanaka junni lay jar. kenn say ñootul ñu amaat beneen actualité yi législative yii 165 députés ñu yokk ko 172 loolu di bagage. loolu du waaw déglu ma rek xool kii di tey nee nga tey da ngay da ngay def naa ko noppi. Hmm. léegi waaw léegi loolu di actualité. Hmm. ñu war cee xuus. Hmm. beneen ba yeeyu askan wi. Euh, li ñu doon laam-laamee Khalifa Sall lay nekk des ou pas ñu teg euh, Sonko mu des a officialisé yooyu et tant d'autres j'en passe et j'en passe. mais bu doon sax mi ma dafa ne wàññi suukar gi. loolu buzz la bruit la ñëpp nañu àndandoo dafa fekk waaye ñu teg Mimran photo yi daal ñoo xaw différence fii mu sol lii ci euh, Vieux Diouf euh, euh, dañoo xuloo na ma ma neexal ko tuuti Vieux Diouf réalisateur bi. pour sol lopp si nga teg entretien yi koo xamante ni. non non non xam nga li garaaw Chérif li garaaw Chérif xaaral wax la li garaaw. li garaaw xoolal lii wal fi def lii indi ma beneen quotidien indi beneen ba ñett la. Mm-hmm. le quotidien. ñu ñëw euh, kii yi daal ñoo changé t-shirt ba fii dafa sol bii. non même bi même te ça ça ça arrive même yére bi bi la tudd waaw mais xam nga euh, kenn waxu fi ne exclusivité la ah. a mm-hmm. euh, na xam nga boo seetloo temps yëpp ku seetloo depuis deux semaines trois. vraiment maa ngi wax ak dal wax ak tey. Mm-hmm. dégg nga bàyyi naa waaw xaaral rek bàyyi naa. kii yeeg nangam nga parce que xam problème poids laa amoon. waaw fi mu ne ku ne ku iñaanul war nga reconnaître ne Aïssatou xaw na 2 kilos mi nga wàññeeku 3 kilos te ku ne xam ne ku pataa bu ku mës a pataa xam nga ne 1 kilo wàññeeku sax perdre 1 kilo dafa metti donc yooyu nag sama sama sama allure bu bien bi ma nekk Chérif Dia doo ma ko yàqal. Mm. donc ma ñëwaat. Euh, xam nga les esprits tordus dont je fais partie. Mm. Euh, su ma gisee ñett ñii ñun ñi yëpp journaliste yëpp bëgg exclusivité li nga ñëkk lijjanti ndax Mimran du waxkat du du du koo xam ne c'est pas un client euh, lambda du koo xam ne da ngay romb jàdd ko jot ko. da jàpp ne dafa suukar gaay. mais c'est évident. non non non non mais mais mais quand même wax nañ ma porté plainte. waaw waaw xaaral Chérif. waaw léegi Chérif nag Chérif Chérif zen attitude. waaw donc bu suukaru xel tey na. sama xel tey na bien dit sama xel tey na parce que li fi nekk bi d'actualité ñoom ñëpp ñu àndandoo tegaloo ñett et puis pour des journaux pour des pour des journaux sérieux Walf Quotidien kenn naataabale wu sérieux euh, le quotidien malgré les jambaleries de jàmbal c'est quand même reste un journal sérieux l'observateur par parlons même pas le premier journal du Sénégal lii xajam na te lii nañ arrêté yii. nañ ko arrêté nañ ko arrêté nañ nawloo sa pas normal. c' est léegi boobu jàll naa si a affaire affaire ah, du ma fee sàlluwaat nekkuma ci affaire coopérative du ma fee sàlluwaat nekkuma teguñu ko fenn du information du buzz. Ah, suukar du buzz nii. suukar buzz mais lii ban affaire information la waaye ñëw toog di jaay boppam tegal ñaari tànk di jaay boppam di tagg di poobar na fay publi reportage lii publi reportage gi ban yëfe na ku ko encaissé mooy problème bi hmm. loolu lu salte lu ñaaw la lu dégueulasse la te rus naa na li ci l'observateur bokk ah waaye bokk na si terew naa ko wax bi yowoon na nañu pousse naa nga tëdd nelaw ah looloy dëgg léegi bu ñu poussé foofu waaw bu bu bii poussé ma ñëw si benn sama brève laay évacuer vite fait beneen brève deuxième brève mooy discours à nation bi Macky Sall def bërki bërki démb lenn intéressé ma si ndax li mu wax yëpp ay tàngal ceeb ceeb bu xooñ ak et cetera ceeb bu xaw foroxaale ak taggaale boppam def naa lii def naa lii kanon kanon yooyu c'est pas intéressant mais li ma li ma li ma ci naqari choqué ma mooy un président de la toog ba léegi nii nga xam ne ñi ngi naan chaque jour ñu ne J moins J moins J moins nga toog jàkkaarloog àddina naan waaw loyer bi ago de loolu lu grave la Mm-hmm. avec d'impuissance la avec d'impuissance boo xam ne nii moo ko tey lu tax mu tey ko man li ma si jàpp mooy ba tey euh, sama esprit tordu dama naan xëy na mu ngi naan waaw ah euh, am naa loo xam ne dese na ma parce que waru toog mille vingt 2022. ak li fi xew yëpp ci ci loi yëpp la mu fi def yëpp toog xaar ba 2022 naan mënuma ci dara léegi daal parce que ébi di défendre kii yi naan waaw parce que vraiment nit tam dem def prêt bancaire def nii dégg ñi ñëw naan la wàññil karang-karang donc non léegi daal nañ def xaw ma lan ay logements sociaux loolu moo dafa am temps def logements sociaux amul temps def logements sociaux léegi xanaa loolu mooy Sénégalais yi piis leen ba tuuti xaw a toggal tuuti rangooñ may leen ma toogaat tuuti ma def ko ça c'est très li mu wax yépp na discours am yépp looloo ci gën a doy waar ndax président bu toog bu dee ñun dañ dañuy am président boo xam ne mënu faj mënu suñu soxla on n'en a pas besoin mais Aïssatou dogguma la sax est-ce que du tamit euh, ak fi ñu koy wax ndawal kenn mënu ko laal moo xam bu ginaar la bu xar wala bu nag moom wane na fële ci jën aveu d'impuissance est-ce que tamit bu continuer nii ñun dinañ yaakaar ci moom solution mais amul mais Fatou li nga wax a ngi ci kanam xam nga ko ku bëgg toog yow taxaw ne ñun ñu ngi bëgg a dee lekk nu naanunu lu yaas baa ngi ñuy sonal bokk ñax chiffre jafe nga xam ne propriétaire la lu yaas mu ñuy sonal nga taxaw yow ñun suñu suñu dernier rempart suñu dernier recours nga mel ni ko dem cour suprême mu ne la mënatuma ci dara loolu kan xanaa mënu ñëpp dem jaay euh, nu ñu def léegi te loolu mooy même euh, à la euh, merci des bailleurs à la merci des loolu mooy kooku waru ko sax wax kooku benn benn benn penalty benn xaw ma penalty la ñuy wax mooy lu garaaw loolu benn penalty bu doy waar boo xam ne kooku Macky Sall vraiment waroon nañoo yërëmee neneen lu dul jàkkaalu ñu naan mënuma ci dara alors que la loi existe la loi existe te moom mu am ay moyens yoo xam ne mën na lijjanti lii fii kenn doxu fi kon da ngaa neex. bu baax ndax ko defaraat. moom lu ñu xaar si moom mooy solution defal ñu waaye ñoo taxaw mënuma ci dara da kaa neex moo tax mënu ci dara. loolu euh, beneen bref beneen bi nga xam ba tey toujours Macky Sall. encore yi nag audio yi. di nga ma may ma jeexal samay bref beneen euh, fi may jeexale si bref yi. mais assemblée nationale naa ci dellusiwaat euh, semaine prochaine parce que loolu ñu yokku intéressé wu li may intéressé mooy ña fa nar a dugg profil ba. ndax bu dee ay xaarkat ñooy dugg dañuy yokk li mu xaarkat yeeg màttantekat yeeg yooyu mm. loolu naa ci wax semaine prochaine incha allah bu dee dara xew ci diggante bi donc fi ma jeexalee sama brève bi mooy mm-hmm. euh, Macky Sall ba tey Macky Sall moo war a bàyyi affaire de grâce euh, grâce u euh, les nu tudd ci 4 avril mm-hmm. xeetu grâce bu mu Sall ba mu fi toogee ba tey fu mu defee grâce def ñombe bu jógee naan yëguma ko dañ maa wax dañ yëguma lu xew bii passé euh, j'ai pris le soin ma ma ma ma woo ay ay quelques juristes ñu ne ma daal gaa genre légal na et cetera mais xam nga man lu légal dafa am problème moral ndax wax dëgg yàlla foog ñu lijjanti kon mhm. euh, critères yu ñu war a ni ñu ni ñuy defee grâce parce que waxuma sax chaque fois bu defee grâce récidive am mais li gën a garaaw ci cas bii wax dëgg yàlla ñaar ñaar ñoo ñàkk seen bakkan dañu war a Macky Sall dafa waroon a xalaat am respect si ñu dem ak ñi ñu bàyyi seen ginnaaw yow ñu condamné leen crime de sang acte de barbarie muy Baara Sow ak Ababacar Diagne Sow ak ak Babacar Ndiaye nga xam ne faati Ababacar Diagne faati ñooñu bés boobu bés bu metti la Sénégal vraiment kenn mënul comprendre loolu ba tey jii may waxee yow kenn mënul benn amul benn sénégalais boo xam ne yeewu nga yëg loolu sa xol tooyu nga yërëm ñooñu ak ni ñu leen defee nga yërëm leen lool kooku nga yow da ngay posé question est-ce que ay nit ñooñu ñi def loolu ay nit lañu. Hmm. yow ñooñu def lu rëy loolu man pour man sax 15 ans dafa ndaw ñu tëj leen 15 ans daal leen 100 millions ñii ñu tëdd nalaw 10 ans nga xëy suba comme ça. tu les libères comme ça gratuit retournez chez vous commencé di balbalu léegi ñaar ñee dem kon seen dee perte nañu qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux qui sont partis pour pour pour ñu rey leen comme ça gratuitement. ñu rey leen nii ñu leen rey di di daxaguwaat comme ça bu subaa loolu mooy mais continuer dafaat leen ko ils vont encore faire lu gën a pire léegi seen njaboot yu ñu bàyyi ci ginnaaw qu'est-ce qu'ils vont devenir comment ils vont regarder ces gens là nga xam ne qui ont qui ont tué ñu jàpp ay daf leen comme ay xar comme ay mala tabaski leen découper leen comme ça presque suul leen ak ni ñu leen ni ñu ko defee yu salte ni ko defee les anam ñaaw ñu xëy suba mais c'est extrêmement choquant te vraiment Macky Sall def na lu grave loo xam ne nii moom affaire grâce yii na ci dugal waxuma sax xel ak xol mais na ci def yërmande parce que mi ngi def lu grave yoo xam ne day yàq àddina day yàq société lenn nag laa koy ñaan def na lu muy def ba pare il paraît que c'est irréversible def na ko ba pare waaye jàpp naa ne loolu moom tribunal des hommes ni mu mën la def waaye yàlla suñu borom bi am na yoo xam ne du ko seetaanaa fii ku fi ku ku ku tuur dareet dina am leneen lu leneen luñ tuuru si yow. leneen lu Macky Sall mën a def lu ma koy ñaan mooy au moins na solage na xool naka la mën a fexe ba soulager. naqaru njaboot ñu fi bàyyi. na na fexe na góor góorgóorlu ci weeru koor bi ñu ne ak lu ñaaw lu salté lu dégueulasse li mu def démb di libéré na fexe ba soulager dafal ñëli foofu laay jeexale ci ma ñëw nag ci euh, audio yi audio yi. Euh, dama bëgg donc comme li wax tout le temps sénégalais yi am xel laay waxal waxumaat ay taalibe Seydina Ousmane Sonko mu sell mi ak ay proche waxumaat ñooñu ñi may waxal te ñi may dégg ndax li tax dégg ma mooy gis naa ne beaucoup de gens ñu commencé jël recul quand di xaar euh, Bercy bi nar a am fële Youssou def na Bercy mais Bercy bu rëy bi tribunal la nar a amee muy procès parce que de quoi il s'agit audio yi euh, ñu ngi koy doogoo publier mais ku nekk fii yàgg nga dégg te bruit bi yàgg nañ ko dégg ba audio yi amee euh, ñu déglu ko man déglu naa ko dégluwaat naa ko ni ko ñëpp déglu woon euh, Mamour Diallo lañ ne moo ci wax ak Adji Sarr ak ay nit ñu nekk foofu man ban enseignement laa ci tiire mm-hmm. premièrement et ça c'est conviction bien que maa ngi jël précaution langage euh, d'usage pour man voix boobu kooku Mamour Diallo la. c'est bien Mamour Diallo. man dama gëm ne c'est bien Mamour Diallo. donc ay audio yu certifié. man gëm naa ko ba keroog nag ñu am indi preuve du contraire mais man gëm naa ne hmm. effectivement c'est Mamour Diallo mais. kon kay ñu déglu thèse du complot bi ñuy ci laay ñëw ñu ñu déglu bu baax ñépp a déglu audio yi ah li Mamour Diallo wax Mamour Diallo d'abord kenn dégg ko mu tudd benn yoon Sonko benn Mamour Diallo dafa ne papa buy wax ak doomam doomoo ko di wax ne di ko eh, wax wax na sax loo xam ne ci biir wax ji nee na ko wax na ko ñaar yoo xam ne enseignement yu doy waar mm-hmm. nee na ko ki la tekk lii la teg ba lii dal la man duma la bàyyi mukk duma la abandonné dinaa la jàppale nangam naa parce que jigéen nga xale nga nàngam naa wax na ko loolu wax na ko nee na ki la teg lii la teg lii la dal ki la ko teg ba nga nekk ci situation yii et cetera et cetera ñëpp yoon nañu ëpp beneen bi nee na ko aji fii nga toll état du Sénégal mënu la jox passeport diplomatique parce que y a xam nga loolu bu ñu taxawee foofu déjà déggoo fa dara loo xam ni accrédité dina teesu complot xam nga complot mooy lan ñaar ni ñu combine bëri pour daan kenn déggoo ko fa tudd fa kenn te ñaari mu wax yépp benn bi mooy affaire passeport diplomatique bi ak génn euh, pour moo aji saar mu génn euh, man li ma jàpp mooy audio boobu dafa disculper un. d' xaar xaar Chérif xaaral ma ñëw il faut nga xam fu ma jëm pour nga mën a dugg. li mu disculper lu am solo mooy d' abord cette thèse du complot li ma yàgg wax dama ne et je le maintiens yàgg naa ko wax man complot gëmu ma xamal laa gëm récupération politique d' abord la personne de Mamour Diallo moo ma may ñëw la personne de Mamour Diallo Mamour Diallo ak Ousmane Sonko kenn ku ne xam ne ne bëggante wuñu Mamour Diallo bu ñu ko dàqee. mën nañ jàpp ne lu bari à cause de affaire de 94 milliards bu mu bokk ak Ousmane Sonko la Mamour Diallo bokk APR euh, Sonko tax na ba mu daanu ñoom ñaar ñu noonoo ku ne fii am nga sa noonu ku ne nag ak li la jaral noonoo lim la jaral boo déggee sa noon am lu lu métti lu ko dal nga mën ci profité nga profité ci. loolu laa yàgg wax xaaral suuf ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw il faut attention au au vocable. Mm-hmm. complot ak euh, euh, récupération politique xaaral ma ñëw xaaral xaaral Chérif xaaral xaaral xaaral Chérif déglu ma la wax moom laa la wax dama la ne mm-hmm. Sénégal na affaire récupération politique fii bu ñu wax complot complot rek mais nañu remonté temps Ablaye Wade jamonoy jombos jaw yooyu jaruma ci revenir sama mbokk la sama cousin la sama mag la te ki ki mu ko sekkal sama lépp la le ministre Ousmane Sa euh, euh, Omar Sa bu ñu ci accusé woon tout le monde se loolu bu ñu wax complot dëggantaan loolu xeet la nax complot mais lii lu tax ma ni la man damaa bëgg nit ñi di déglu mooy euh, ku la mën comploter daf fekk mu xam sa yëf fi ngay jaar fi ngay nangam na man tey Astou Diop Fall ko bëgg comploter xam nga ay yëfam fii lay jaar fii nangam waaye yow boo jógee nga may sa bopp complot laa ne amu ci récupération politique moo ci am. ay Aïssatou loolu nag moom wax dëgg yàlla su opinion la mais opinion. Sénégal euh, ñi ëpp ci Sénégal euh, bi bi bi audio bi génneeg léegi xel yu bari tey nañu parce que Mamour Diallo lan moo ci yoonam. ci yëfu Adji Sarr ak Sonko te ku ne xam na ne. ba muy dem diggante Mamour diggante Mamour ak ak ak Sonko ni nga ko waxee. Euh, depuis 94 milliards non dama lay wax. non non c'est-à-dire damay poser question. dama ne est wax jooju nga xam ne Mamour Diallo wax na ko te yow nga jàpp ni certifié na ko du accréditer la thèse du complot. waaw léegi mën naa waaw xaaral Malick. xel yëpp tey xalaat sama Malick Malick foo ñu déglunte xam nga lu tax. d'abord chaque fois ma wax la ko fii Malick boo nee Aïssatou sa opinion nga wax da ngay fàtte man lan mooy chronique. non je te renvoie. vraiment à l'abécédaire ah, voilà donc c'est pas ton opinion à toi c'est pas la mienne moo tax je fais une chronique donc sama opinion bi may wax nag c'est l'objet c'est pas toi la tienne et quand je suis ici je, je donne mon opinion d'où la chronique est on est bien d'accord mais deuxièmement aussi je dis que bu ngeen ma dégloo rek ñu àgg si mhm. dama ne complot laa wax dama commencé par wax ne te yàgg naa ko wax ba ñu fi commencé ba léegi même chose laa wax dama ne complot amul récupération politiquement maa ngi ñëw. est ce que loolu war na ci am non waru ci am moom dégg moom laa commencé Chérif loolu laa ko dégg ma la Mamour Diallo li Mamour Mamour Malick wax. la defal nànk Malick Malick loolu laa la wax dama lay bu tojoo ma tax fi wax dama am temps wax ci lu tojoo. li mu toj moo tax ma wax dama la ne. Mamour Diallo d'abord nee naa moo moom moo wax man gëm naa ne moom la. un moo da may déglu ak xel bañ a dem ak passion. Mamour Diallo wax naa li mu fekk Ousmane Sonko. c'est dégueulasse récupération politique la warul am ci politique warul am. ci ci kenn mooy yaw faate ku ne am na sa noonu personnel privé nga yëg nga ñàkk ko yëg. sa noonu nag boo ko yéenewul jaam nga yëg ne am na lu ko daal nga profité ci lii laa wax. je dis que lu tax man mënuma gëm. jusqu'à la preuve du contraire complot mooy Ousmane Sonko naa Ousmane Sonko mu sell mu yiw mu baax bi moo jóge këram kenn dorogé kenn defu ko dara kenn forcé ko kenn plan wu ko moo jóge këram bàyyi ñaari soxnaam foofa waaxu dem ci aji saar mais nee na da doon faju ji waaw xam nga faju bi faatu faati nee naa la mhm. wax dëgg yàlla Adji Sarr de ku ne xam na ne deful daraay faju bu dee faju donc Ousmane Sonko xam na fu ñu fajoo. mais Aïssatou mais traitement bi ñu def ci dossier bi après xëy na moom mooy teel nga Ousmane Seye Ousmane Seye def naa ci Vox Populi maanaam l'opinion aussi. bu fekkee moom Sonko aussi mais moom laa xam nga moo tax ma ne guerre des ci laay ñëw xam nga guerre des jub guerre boobu ci laay ci laa lay wax nii. ci laay ñëw. dama ne ba mu jógee moom Ousmane Sonko waaxu ba ci Sweet Beauté seeti Adji demu fa benn yoon demu fa ñaar yoon daf demu fa ñett yoon muy dem ba mu demee euh, nit ñi xam ne daf fay dem mooy noonoom yi xam ne daf fay dem ñu dugg profité ak nañu profité wee sama jamono daal léegi nag li nga wax ne Chérif ci laay ñëw tontu la euh, xam nga d'abord c'est regrettable xam nga xam nga mais je te dis je te dis que Mamour Diallo implication ci euh, dossier bi lu regrettable la. lu tey xel la. Malick mooy lan ci olof yoo tamit. yow nag yaa ngi bëgg a wane sa fi nga bokk ah. bokkul non déedéet fi nga bokk la mi ngi bëgg a fay. ñu Malick waaw déedéet Malick laaju ma ma Malick day joxe opinion te waru joxe opinion mën naa war joxe sama bos. Ah. ah déedéet. Mm, maa bi léegi ma ñëw waaw léegi waaw di ko wax waaw léegi. implication euh, Mamour Diallo xam nga tey jii bu Sonko keroog ba muy génn àdduna bi génn. Mhm. moom mosul tudd Mamour Diallo te li mu sekk ak Mamour xam nañ ko. mais complot lay wax. waaw non non non Sonko yamu ci complot Sonko Sonko yamu ci complot dafa dafa tudd ñan ñoo koy comploté. dane Macky Sall la ak nguurum loolu la wax bu ne woon Mamour Diallo la xam nga benn ginnaaw bu jóg. mais dane Macky Sall te xëy na ba mu naan Macky Sall xalaatoon na ay noonu parce que c'est de bonne guerre moom Sonko ba mu jekkoo saa yu jekkoo ma Macky Sall def leen ko ñii aussi ñu jekkoo def ko tey wax nañu moom Mamour Diallo mais bu ñu fi continuer di nga yeneen leen a faati fu may ñëw di nga dégg yeneen loo xam ne nee nañ audio yi kay des na voilà mais mais fu may ñëwee faati xam nga actuellement li mu li tax ma tuddee sama euh, chronique bi guerre des audios bataille de l'opinion mooy Ousmane Seye wax et tout ça c'est de guerre parce que d'abord fii Sénégal dañ tàmm ne procès ak affaire justice yi ci mbedd mi la d'abord euh, boo xoolee boobu ba léegi benn camp mooy wax benn camp bi wax mooy ñoo génneel en tout cas audio yi génn na audio boobu yooyu yooyu génn nag effectivement ku ko dégg da ngay xam ne camp be euh, favorable peut-être. ak nguur gi. waaw mais dogu Aïssa doguma la bëggoon naa la laaj foofu est-ce que. fi jamono toll ak fi dossier bi toll dañoo war a yem rek ci déglu audio bàyyi est-ce que warul nag quand même. laaj enquête bu am solo. man nag man nag Faty fan la fan la féete. man nag man nag Faty vraiment yàgg nga ma nekk ci mais si plateau bi yaa ma ci dàqal ñëpp <laughs> parce que yow yu pertinent ngay wax waxoo benn parparloo ruube woo parparloo kii day parparloo kii day ruube kii nag man dafa ma bëgg kii c'est la Suisse Marcel Maron c'est la Suisse mais Fatou ma ñëw parce que euh, audio yi laay wax mooy te finalité bi loolu la ndaxte xam nga guerre audio yi parce que ay avocat Sonko mën nañ ko def arme ah. mais mais mais xaaral wax la boo seetloo euh, ñu ngi euh, li yi génn camp bee la favorable mais beneen camp bi comme ni ma la waxee sànq audio yaa ngi doog génn fii ñu fi nekk ay journaliste lañu te ñunu journaliste sax parce que ñu doon nekk journaliste ñooy taxaw di wax soi-disant ay activiste ñu leen jox ay affaire ñuy wax waxuma la ñun ñi nekk ci ku nekk juñum moo tamit procès bi euh, faat ci laay moom laay jeexalee mm-hmm. ku nekk su ñun xam ne ñii bu ñu yoree audio en face kenn déglu ñu dañ ne patt toog waaye en face tamit ñii ay audio lañ yor waaye en face lañ la yor est-ce que en face yoruñu lu gën a garaaw audio yoruñu ay video c'est une question que je pose léegi loolu yëpp nag xam nga lan moo koy leeral li ma yàgg wax fii ñëpp di ko wax mooy procès bi Macky Sall Macky Sall laay waxal ndax yàgg naa wax ne moo pañe réew mi moo pañe town bi fi mu ne sénégalais ñun lu ñuy may ñun parce que ñun Sénégal dañoo sonn ci affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko on en a assez dañoo am problème existentiel yu gën a fort affaire yu ñaari nit kee dem fee joxe yaramam ñu naan ñu maase ko 4 mais deux mais 3 mais et cetera mu taxaw dañ maa comploté kee ne complot wu ma nangam nangam dañoo sonn li des mooy dañ tëgg Bercy fee tribunal nañu woote procès waaw non euh, euh, kii Chérif Chérif xam nga lenn ci justice bi neex na ma lenn ci justice bi neex na ma mooy Seydina Ousmane Sonko mu sell mu yiw mu baax mi ekekee pros ba mu ne le 6 avril lañ may déglu laa bëgg auditionné nañ ma auditionné nangam te day cinéma yàqamtuwul procès ba ndax procès ba dafa nar a xew lu leer la man procès bi dama ko yàqamti ndax. Sénégal waaw non mais procès foog ma am. tout dépend non non non non wax la tu sais procès. ala kulli aalin dafay am kaan wax la fii bu ñu xam nga taal dëkk bi te di yàqal Ousmane Sonko mu sell mu baax mu yiw mi lu ko nar a nañ fexe ba dugg si naan pro euh, euh, procès amul euh, dossier classé sans suite. parce que loolu c'est ce koy décidé. Chérif xaaral Chérif xaaral kaay wax la. parce que na fi leeral. non non nag seen affaire yooyu. waaw ba mbiram justice la waaw waaw mais attends man Chérif wax la dama ne. nag Chérif Chérif il faut non pas dañu fàttali procès de force du devoir am. procès bëgg na procès la procès dina am force parce que parce que d' abord d' abord y a eu des morts un Ousmane Sonko pour la poursuite de sa carrière politique mu nice clean zen ndax lii da koy topp comme herpès foog. Sénégalais yi publiquement ñëpp xam fan la dëgg lee xam nga dëgg bi du ay nit toog fee. muy wax foog procès am. Hmm. na lu mu mën a jàppale mais Aïssatou nu mu gagné. par exemple euh, mooy li maître Ousmane exemple la la la bataille de l' dafa mel ni moom daf ko gagné est ce que loolu mënul am njeexital ci procès bu amee. xam nga moom laa xam nga njeexital boobu maa li nga wax dëgg la mën na am parce que bataille de l' opinion. Euh, tamit dama jàpp ne volontairement ñëw stratégiquement. ñoo bàyyi li xew li xew xew parce que boo pour man dama jàpp ne euh, te loolu sax dafa baax si Macky Sall ndaxte euh, xam nga maam Mamour Diallo miy génn rek xaw na am na yu xajam léegi buñ si boolee nag ñee tam xam Macky Sall am na ay répondeurs il faut que les gens se posent les bonnes questions pourquoi répondeur automatique yu Macky Sall il en des milliards man lu ma je suis sûr que moo leen noppiloo ñu bàyyi procès parce que je te dis mm. bataille de l'opinion kii gañ lii première marche xam nga xeex ku ñu ko yuux yaa ragal mm. première marche moo naan bataille de l'opinion waaye njëgi sarax ba fee la procès tribunal nañ toog tribunal mm. Adji Sarr daagu ñëw Ousmane Sarr mu euh, Seydina Ousmane euh, Sonko mu yiw mu sell mu toog mm-hmm. aji wax baat tontu avocat yi ñoo metti Abdou Dialy Kane laaj Ousmane Sonko ay avocat am Cheikh euh, maître Cheikh Koureyssi ma nga xam ne ma ko bëgg sama biir xol mm-hmm. ak maître Bamba Cissé tontu dëgg bi leer Sénégal yi foog ñu xam mm-hmm. Ousmane Sonko quest qui s'est passé dans le secret de la chambre de xaw ma chambre la xaw ma lan seen ruq boobu nekk cabine euh, Sweet Beauté Ousmane Sonko ak Adji Sarr qu'est-ce qu'ils ont fait dedans ba Adji Sarr génn wax loolu foog mu leer Ousmane Sonko mënul fexe avec ses énergumènes mënul fexe ba loolu bañ a leer dina leer dina tax a jàkkaarloo juge ba dina auditionné loolu merci beaucoup Aïssatou euh, jërëjëf Aïssatou merci beaucoup ñu jàll rapidement euh, ci gëstu bés bi laata ñuy dalal suñu invité